car rapide ñu may ko riir ñu oh, may leen ma riir may leen ma ya, ya. Yeah. Yeah. Ooh, yeah. Nigga job, get that job. Why job get tacky? Then you come see your bob, get sandy. voilà vous avez compris job break, job break, les jeunes ils l'ont dit aujourd'hui nous euh, nga xam émission la parole aux jeunes moi, euh, groupe bi nga xam ne sniper family gars yi bu leen ragal ah, parce que je pense que yoruñu ay flingue ce ne sont pas de véritables snipers mais sur scène dañuy flinguer ñëppay daanu donc aujourd'hui nous allons parler avec ce groupe un groupe bi nga xam ne ñoom ils sont dans l'arène bi gars yi dañuy mbalax des fois ñu dóor ay affaire yoo xam ne man sincèrement damay am chair de poule quand je les écoute et je pense que vous allez avoir les mêmes sensations que moi donc c'est votre émission la parole aux jeunes euh, wax naa leen ko ñu dalal fi groupe sniper family gars yi na ngeen def sniper c'est un groupe de jeunes des jeunes talents tu vois euh, des jeunes qui ont l'ambition de faire de la musique leur carrière de l'art leur vie. Les jeunes musique génération vise loin quoi. Bon, nous sommes euh, un groupe de jeunes, nous nous sommes rencontrés et puis nous avons vu que nous avons un point en commun, qui est la musique et l'ambition d'avancer c'est ainsi que nous sommes mis ensemble et puis je crois que nous irons loin. L'ambition d'avancer c'est très important Amna na ki nga xam ne yeewagul mais dina yeew. dama xaw da nga don door lyrics di tagay vibes. waaw waaw biddanti quoi. xam nga rek sniper mënul yomb. dëggantaan waaw nek sniper dafa metti lol mënul yomb uh-huh. dal. Euh, voilà euh, ci ben émission. Mm-hmm. bu nekkoon relève bi ci lañ ko soñu man ak Ismaël. Mm-hmm. ak Libas mi tok mm-hmm. ñu génn euh, voilà mu nekk lo xam déggoon nañ suñu biir daal. lu ñaaw musu ci am te voilà. Mhm. yàlla na yàlla na law daal. yàlla na law amuñu limite daal. ok amul limite. parce ba bitim réew. Mhm. tey ñu ngi ñu ngi woo Ismaël di ko féliciter. ci single bu bees bi mu def or que moom jàpp na ne du dara te ñun jàpp nañ ne du dara. parce xam nañ li mu mën ci musique. kee di libaas mom duma ma wax ci ay mbiram dina la won lu sew ci kanam. dina ma won lu sew ci kanam jaajëf. la parole aux jeunes nak nek fi di wone euh, jeunes yi nga xamné ñoom ils sont en train d'entreprendre di def ay affaire tay par exemple suñ doon wax sur le plan des activités wala ay programmes lan ngeen entreprendre pour le moment. pour le moment ben programme lañu amagum moy ci grande vacances yi dañu bëgg a def benn genre tournée ci biir Sénégal euh, surtout si si si si sous région yi affaire yi noonu. ok yaa comprendre. Euh, dañ bëggoon def sensibilisation côté sida affaire non mhm. côté un peu social quoi en quelque sorte. Okay. oui parce que c'est de notre part aussi de cibler côté social quoi. ok oui. Ismaïla génne na benn single mais je sais que amna lu bëri li nga xamné denc ngeen ko libas li nga xamné da ngeen koy won sénégalais yi jeunes sénégalais wala monde bi dans sa globalité. <laughs> waaw boo xol euh liñ denc moo ëpp sax li génnagum quoi. ok parce que Sniper dafa mun naa ni. <laughs> entreprise la. <laughs> entreprise yi si biir am na ay branches yu bari. Mhm. li ma doon wax keroog rek. te différents si yi ñuy def bari na. dañuy def hip hop. Mhm. dañuy def rock R&B reggae blues. Mhm. gars yi bàyyiwuñ dara. boo xoolee ñun ku nekk dafa am la nga xam ne day nelaw si ñun. suñ borom moo nu ko defal quoi. day nelaw ni selaw ci ñun. te du kenn ñu ñoo ko war a mën a yee. man léeg-léeg damay am benn feeling def benn jazz. Ismaël, day am rock Mansour day am def nga. Mhm. Mhm. mais dafa nek suñu la nga xam ni mais man dama contre ben affaire xam nga da ngay limité ci cadence rek. Mhm. artiste artiste da tout à fait. d'après moi la musique n'a pas de frontière d'autant plus que nous sommes encore au Sénégal donc c'est obligé nous sommes d'une part ou d'une autre obligés de collaborer avec. ok euh, sama waa ji léegi xam nga Sénégal la ñu nekk. Mhm. tey ñu nekk ci mbedd bi dama bëgg ngeen mbalaxal ma benn affaire. <laughs> il faut nga mbalaxal ma benn affaire <laughs> jox ñu benn affaire. <laughs> living a lie. Yeah, that must a uh, baby, death must a uh, hide. Baby, you're under long. We put your neck with you, bloody bang. Man, come on, lie. Yeah, can do go ahead and Euh, c'est votre émission, la parole aux jeunes, et vous avez compris, c'est des jeunes qui sont vraiment polyvalents. musique Et vous avez compris, ils ont dit que la musique est universelle. Et je pense que c'est important qu'on voit des jeunes qui entreprennent. Nous avons une initiative. Nous avons faale ma je pense que je vais relève bi mhm. euh, ñoom seen jëm bopp dañ ma conseillé ma bàyyi ko ba si kanam. ok pour mun ko génne mu don lu rafet. Mhm. parce que xel du doy quoi. ñom à fait ñuy mottali suñu biir. Mhm. euh mom ci jëm bopam yakarna mo koy arranger mook Libaas Ismaël ak Libaas. Mhm. Euh, ma lay ñaan nak soññu leen parce que son bi xamna né way way son bi dina dox. ismaël c'est c'est étonnant yéen vous arrangez en même temps le plus souvent dañuy gis artiste bi day out ku koy arranger ku koy tégal musicam ku mais mais vous faites tout ça ci ben groupe c'est étonnant ça. mais c'est pas étonnant puisque dans le groupe, il n'y a que des musiciens presque. Ouais. Mhm. Euh, et moi, j'ai, euh, je joue quatre instruments. au minimum quoi, tu vois. Mhm. Euh, et j'ai aussi j'ai appris à, arranger la musique. Ok. Ok. en tout cas, c'est extraordinaire parce que le plus souvent, on guiss par exemple, comme nous l'avons récent, les uh-huh. musiciens, ils am ki arranger le son. Uh-huh. Dans quelle école vous êtes passé Sniper Family. moi, j'ai été élève uh-huh élève de Antoine Kété, uh-huh. l'ancien président Senghor, son pianiste, c'est lui qui m'a appris à jouer la musique au piano, solfège, tu vois. Et aussi structurer, comment structurer les musiques, tu vois. Comme refrain, couplet, pont, uh-huh. bridge, uh-huh. et comme etc., Il y a beaucoup de choses dedans. Ok, il y a <laughs> beaucoup de choses. je ne peux pas vous expliquer maintenant. man, yo, c'est guitare parce que yéen ñëpp vous avez tout le temps vos instruments vous jouez mais mais comment ça se passe am ngeen métier quand même vous avez autre chose que la musique. bu nga xam ne a un koy def. waaw boo gars yi fii ku mi ngi ci métier am toog. Uh-huh. xam nga mais musique dafa nekk la nga xam dafa nekk suñu mooy li ma doon expliquer rek. man mi di wax ak yow man bon man maag sam papa ñoy liggéey quoi. ok ci entreprise pa bi la nek ok bon fi ku nek fi dafa am euh, métier boppam quoi. ok ok. Ismaël, moom je sais que c'est la musique c'est live c'est c'est la musique Voilà, ah, si si hein? je suis aussi moniteur d'enfants. ok j'encadre des enfants oui. <laughs> ok et, mon ami qu'est-ce qu'il fait lui. je suis un étudiant. en, dessin bâtiment. ah dessin bâtiment mom dégg naa yow dégg naa yow yaay jaay caaf yi loolu moom du dañ ah. ko jaaykatu caaf foog moo am ci groupe bi quand même ah. <laughs> au moins. mais mais sniper du doon tu caaf. ah <laughs> sniper day teg man maintenancier là quoi. ok tu mhm. maintenancier. ok maintenancier vous avez compris donc c'est un groupe au-delà de la musique ñoom ñëpp am na li nga xam ne ñu ngi koy def vous avez entendu on n'a pas besoin de revenir là-dessus mais léegi gars yi wan ngeen ma tuuti ci li ngeen di def ci mbalax léegi dama bëgg a xool bi. li nga xam ne également moom ngeen ci def oh, ah, ah. Eh. Sénégal Sénégal dëkku teranga sama musique laa lay bëgg ndaxte dëkk jàmm nga dinaa la sargal ci lépp ndaxte ndaaraan nga jam fit fu la ak jàpp puwarul aja ci tefes am nañu nar togu war nga lu xees kon dik te baña dik jëwal jooju gune yi nga big jampul ak payda war nga Sajam detik tak eh sa fayda nekk lii la eh ya jambaar demal ñëw léegi gaal gi wëng menu li këpp leeraay feeñ jox wake up jup taxawaat nit xoolaat guy gi gaynde gi yëfi maami bàyyi ngir bañ luñ fi daloon dalaat jos nyukal diuli cikanam nelen jek ta hau jo e eh, sine ka sine ka de kuteranga sama music la le begen da te de ke jam go de na la sarga chil ta tendanan ga fit full ak jap sama na fiti yang itu bek mungi nuru nyaki yang sit rung yang turu le begen da tar ni di yang recu le batak na khamat nyu ci ko nya ligo nañ ku kilo yap, ba léegi gisaguñu lu niiru naak ba pare teg si nañ ko yuhu na lao? de yak niro, bena-bena benn di daw xame tuuma Sénégal bi di sopp gendi di maget na di reele ginnaaw gaal seen kenn du fi noppi lépp ngir kumbu

kuasa Nek tu job rangir job Wajab ngir teki si sinyupa Ngir sede Libas Kamu <laughs> kamu Libas in the playation ya <laughs> Karapit karapit karapit Avec ma Jai Pretty budget man kaas ñu gaal dëkku teraanga sama musique laa ne bëgg ndax te dëkk jàmm nga dinaa la sarga ci lépp te ndaanaan nga bës bës bës bës dinañu mucc ci xiif tolof tolof yi gën wàññi foog ñu déggoo ci lenn door waar sans xaar nekkatu job kekki job waaye job Nenhugam senha pop que se nega. <laughs> Yeah. Cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool. <laughs> <laughs> les gars vous avez compris je vous avais dit à hein, vous allez avoir des frissons Ils sont le Youth et c'est des jeunes qui font ça et moi j'adore quand je vois les jeunes dans Parole aux jeunes entreprendre faire des choses on a toujours pensé que c'était les jeunes de l'extérieur et vous avez dit dans votre chanson que Jotna, na que Sénégal dafa les dañuy euh, expliquez-nous un peu la chanson lan forward, quel est le message wooy bi dem ka bindoon fekk ne temps yooyu crise politique bi dégg-dégg. am doy na waar gars yi di xaajal doy na waar quoi xam nga rek. di taal pono xam nga <laughs> di naan laay wadd demal. gis nga mu bañ dem quoi xam nga rek waaw heureusement dem mhm. at. doo xam Sénégalais moo gën a patience si si ci àdduna si quoi xam nga rek. waaw patient nañu quoi. Mhm. di ñu toog xaar ba sonn dara kiiwul. xam nga mhm. rek il fallait que tamit ñu tëbal ko quoi xam nga. ok ñu bàyyi fi place. tonton Macky. Mhm. tonton Macky Sall suñu tonton bu baax la ndeysaan <laughs> kooku il faut ñaan ko audience quoi. <laughs> xaw ma ndax nag dina seetaan lii ah bi ah mun ngeen ko ko ñaan mais ñoo ñaan audience dégg nga tonton Macky. <laughs> ngir yàlla rek dégg nga. Yapsi. si votel la de. <laughs> voilà tonton Macky bi nga li nga nous avons un nouveau gouvernement te vous êtes euh, euh, yéen a ngi entreprendre chacun dans son domaine wax ngeen ko sànq ci li nga ne ku nekk mu ngi koy musique bi nekk un complément dans le processus bi nga xam ne moom ngeen di musique mu nekk seen live qu'est-ce que vous avez à dire au président au nouveau président Macky Sall. waaw suñu président bés Mom. mom.

je suis mhm. kon mu bañ ñu parce que ok vraiment vraiment di lancer wala nak appel le ministre de la culture. Mhm. vraiment nous Ndour mu nous mu Sniper Family su ngeen doon du conseil mais si ngeen doon wax par exemple sur le plan du comportement comment est-ce qu'il devrait être face au monde ou face à la population. Euh, à mon avis man il y a 10 ans ci ginaaw mhm. li amul won ok euh, télévision bi ñu Télécom. Mhm. indi tout à fait. Mhm. parce que les dañuy di copier li or que ñom liñ def pour fo la. ci émission yi. ñom ñun ñu ne fait la. solo. dañ koy def pour sen clip c'est pas évident. c'est pas évident c'est pas évident vous avez quelque chose à ajouter par rapport au comportement des jeunes qui laissent à désirer le plus souvent. bon pas grand chose mais juste faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la dignité et la personnalité. Mm-hmm. qui est très important pour chaque homme ils euh, j'appelle tous les jeunes hmm. de notre âge, de notre génération, ou bien qui nous ont dépassé nos grands frères ou encore nos petits frères, d'y penser très souvent. Et puis, c'est vrai que nous avons tous des moments de délire où on a envie de se tout défouler. tout fait. Mais bon, pouvoir canaliser ces moments à autre chose mhm. que ce qui pourrait dépraver les mains. ok gars il me reste juste quelques minutes. Uh-huh. quelques minutes bi une deux minutes. dañ koy affaire je sais pas ce que vous allez proposer aux gens C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission parole aux jeunes mais bon. Euh, Sniper Family continue continuer dire aussi. Hmm? aussi. Euh, ci groupe petit ci get it? Yeah. Uh, malipo sumonelefu ah. ngeni malipo mari, yara, mari.